yéen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ seen yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko tey mu war a nekk sunu ñetteelu daje incha allah ci riyaadu saalihiin ginnaaw bi ñu jógee ci darsub démb bi te mooy ñetteelu dars bi ñëwoon ba toll ci nit ki daa war a def te addub daa war a yar boppam ay mbokkam walla ay paaraam dimbali ko ci yar ba waaw dimbali ko ca yar ba ndax wa ji mu fexee dugg ci groupe bu koy yokk yar waaw mu dugg ci groupe bu ko yokk ay teggin ndax ki nuy roy muy sallallahu alayhi sallam àdduna si moo ci ëpp teggin ku mas a am ngay teggin démb bi ñëkkati bi ñu tolloon ci laay ji nga xam ne mooy wa taawanu alal birri wa jàppale leen gone yi ci lu leen di tax a baax jàppale leen ndaw ñi ci lu leen di tax a baax su ko defee bu ndaw ñi baaxee ñu am ay mag yu baax bu ndaw ñi baaxut am mag ñu baax ay léeb lay doon ginnaaw dugg nañ ci liggéey bu rëy ñu wuñu tey nañ ci jànge jàppale ndaw ñi ci lu leen di tax a baax jàppale leen bokk na ca fexe ba dugal leen fu ñuy jànge xam seen diine xam seen diine xam seen bopp xam li leen di xaar ak lu yàq aw way su ko defee bu ndaw ñoo ñu màggee ñu mën cee tànn aw mag yu baax ñu jàppale ndaw ñi ci luy tax am jom waaw ñaari baat yooyu moom la sallallahu alayhi wa waxoon ci jigéen ju ngeen bëggal jëkkër isa ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu kon wa taawanu alal birri wa taqwa ba demee ca almaayida fekk ko fa sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni ci nun mu ñu jàngal te lu mas a génne ci kàddoom doon lu rafet yàlla garantil nu ay kàddoom ni lépp ngeen mën a jëriñoo dafa waxoon ne dafa waxoon ne wallahu fi awni al abd maa daama al fi awni axi ne na yàlla tabaaraka wa taala ku jàppaleb jaam mu jàppale la li feeg yaa ngi jàppaleb jaam mi ngi lay jàppale jàppaleb jàmm ci moon baax yàlla lay jàppale ci nga gën a baax jàppaleb jaam ci mu am jom yàlla lay jàppale ci nga gën a am jëm wallahu fi awni al abdi maa daama al abdu fi awni axi kon soo amee doom ju góor mu toll ci war a woor nga di ko encouragé ci yooyu yokk sa cofeel ci moom yokk sa loxo ci moom di ko wan yoo xam ne lii muy dafa tax nga di ko ko wan ndax note ya ca école ba dara warlu ko lu dul encouragé gone yi ci ñu góor-góorlu tey tres nga am ëllëg quatorze nga am ñu neexal la li nga def ci diggante bi doom ji nga am woor ba ngoon woor benn bés bu ko wax noppalul jaajëfal ko waaw góoral ko may ko tàndarma may ko bisaab nangam nangam ndax ne ko ndax danga woor bu subaa bu ne waaw nga ne ñu yee la xëdd nga ne waaw ñu xëddee ba noppi nga wax ak waa kër gi ay baat comme yéen a bokk xëdd door a dem ci jàkk ji julli ji waaw su setee gone googu di nab nabi di woor bu la ñuuxoo taf ko ci sa kaw bu la ñaanee may ko boo toogee bul ko janni léegi tey nga am nit koo xam ne ki yaa ngi ko programme yaa yaa ngi ko forme ci wa taawunu alal birri wa taqwa léeg-léeg nga am jabar joo xam ne dafa mel ni nogo yi waaw koor gi waxu ci dara ngay naxanteeg moom ma jëflanteeg moom ba mu amul bés nga feete bés bi parce que dafa woor <laughs> nga feete bis bi loolu daa am lu baree bare lu muy def ci moom waaw te bañ koo yuuxu bañ a xastante bañ koo wax xanaa doob jullit déedéet wa taawunu alal birri am njàngale mu rëy suñ bàkk si la wa alal birri wa te nga yëg ne nag wallahu fi awni al abd maadaamal abdu fi aw ni axi mu ngoog mu wax itam ne moom alayhi salaatu wasalaam eh, man dalla ala xayrin fa lahu mithlu ajri faaili hmm? waaw man dalla ala xayrin maanaam ku ku joxoñ nituk mbaax ba mu tege ca yoon wa jëm ca mbaax yëgal ne lum def ca yoon wa am nga ca droit d'auteur lum def ca yoon wa rek am nga ca droit d'auteur ki fexe ba ki doon ki daawul woor mu um bés bu mu woor dana am tuyaaba nga am tuyaaba waxoon naa la ci bind yi weesu nag benn tuyaaba moo moo mu ëpp jëppal un deux trois moo ëpp liberté un deux trois quatre cinq six six extension yooyu yëpp benn tuyaaba leen ëpp benn tuyaaba moo ëpp loolu moo ko gën a bari te xam nga loolu li ci nekk lépp ku ko yëkkati woon jox ma <laughs> man dalla ala xayrin fa lahu mithlu ajri faili dalla ala xayr mooy ku ku tegtal nit ci lu baax xam nga léeg-léeg dëkk bi am boroom xam-xam ak boroom am-am waaw boroom xam-xam mu mel ni Abubakar Jànqe boroom xam-xam boroom am-am na ma baal bu mel ni Muhammad euh, Tànji Gora wala boroom xam-xam bu mel ni euh, Muhammad Ñang ak boroom am-am bu mel nii ni euh, sunu mbokk Ablaye Xumma damay misaal rek nag waxuma la yor ngeen lu dul jeex waaye damay damay jàngale waaw yooyu boroom xam-xam yi dañ koo soxla boroom am-am yu soxla boroom xam-xam yi su ko defee boroom xam-xam yi ñooy wax boroom am-am yi ku jàppale woon diw de dana baax léeg-léeg nga xool sunu mbokk mbokkum daara ab lay bu seni ko waaye xool ca wetam imam Xaadim Njaay bu parcelle ak am solo aka am solo waaw nga xam ne balaa def dara ci mbirum diine diisoo ceeg boroom xam-xam bi boroom xam-xam bi di ko joxañ muy def loolooy man dalla ala xayrin man dalla ala xayrin man dalla ala xayrin képp koo xam ne kii wax nga nit ne ko diw mii de jar naa jàppale walla diw mii de nàngam ngeen ànd di ko def waaw dama amoon benn meer ndeysaan wagge la sant gëj naa koo gis yal na ko yàlla yokk wér waaw day ñëw ca kër ga ndeysaan eh, di jëflante ak daara ji façon bu yéeme waaw mook sama bàjjan eh, ay sa mbeng yal na ko yàlla yokk wér ak ñu baree bare bari waaye ñoom man dalla ala xayrin mooy am sab xarit ne ko ndax yaa ngi def nàngam ak nàngam mu ne ah déedéet mu ne ah man di dégg naa ñu ne nangam nangam te loola nekk xayr bu kooku jógee di ko def yaa ngay am tuyaaba ci jëf-jëfam te jëfam ji du wàññi ci sa tuyaaba ji dara doo wàññi ci tuyaabam dara moom tam mooy wax li tax mu taalif nee na yonent ba ne man daa ila hudan kaana lahu kaana ajr mithlu ujuri man tabiahu laa yanqusu dalika min ujurihim shay'a ne na ku woote jëme ci njub man daa ila hudan ku woote ci ak njub képp ku la topp ca njub ga danga am droit de droit ci moom droit d'auteur mooy ñi nga xam ne ñooy xalaat taalif dara way ko la ñuy sàmm way wi di sàmmal lu ñuy denc nun nag maa oustaz Tayib Socé bokk gunu <laughs> ak oustaz Alioune Mbaye ak Mbacké Sylla nun bokk gunu sàllaaw youtube yeeg ñoom suñu yëpp jàng ca nangam ak nangam waaye dara waaye bu dee kuy ndagar wala wala muy taasu moom droit d'auteur mi ngi tege waaw droit d'auteur mi ngi tege boo noppee ñu dajale yëpp mu di million ñu yët la ki nga xam ne nag dafa woote ala hudan gaañe fekk si ko ca hudan moom it donateur boobu lay am bosu yàlla nag moo gën bosu gaa bosu yàlla moom yowmal xiyaam lay taxaw mu ñu laal la tapis rouge di muy waaxu ci kaw gaa yi di ko naan eh unsuru na naqtabis min nuurikum waaw gest leen fii ndax nu xam fi ñuy jaar waaw bi ci mujj ci yooyu mu ci dajale dafa dafa amoon benn saxaab bu ñu wax ali ibnu abi ñu jox ko yonent bi ba muy ndaw mu yaroo ca kër ga màgge ca kër ga bokk ak ñoom ba ni ko yonent bi may doomam seydna ali waaye bëri la wutoon waaw bëri la wutoon bari la goo xam ne dañ naan tool bee moo ko moom gëléem yee moo ko moom banque bi am na fa nangam Sidna Ali melutoon noonu waaw am na ci réew mi ñoo xam ne meluñu noonu mën naa am ay ilimaan lañ mën naa am ay jàngalekat ci diina lañ waaye meluñu noonu waaye Sidna Ali nee nañu ca moom la yoofoona bi nasri wàccoon wa yaxaafoona yawman kaana sharruhu mustatira Seydina Ali yonent bi xool ko mu xool ko mu yëg ni kii bu sañoon am li gaa yi am mu dalal xelam ci loo xam ne gaa yi am mënuñu ko am buñ moytuwul mu ne ko yaa Ali yaa Ali mu ne ko labbayk mu ne ko gis naa ni nga mel ci pénc bi góor-góor lay tax nga amul dépense amuloo dara loo denc gaañaa ngi war ay kat-kat ngay jël kalandoo <laughs> mu ne Seydina Aliou gaañaa ngi war ay kat-kat ngay jël këlandoo ndax penc mi ñaare wax nit waaw góor moo leen gën a yomb jàppal ci lii def ci liggéey bi waaw yaa Ali mu ne amu ko loolu la fi ne nit mën naa dóor pooj ba ne suy doom nit jox ko cinquante million waaw Ablaye Gaye nekk ci rajo 2STV dal aw saar naan daxala dugg na xaraja génn na daxala dugg na xaraja génn na ba ca sóoratu ba ca sóoratu lépp àgg kenn du ko bindal chèque bu cinq millions te ka dóor pooj ba ne suy doom cinquante millions léeg-léeg mu dóor pooj ba ne suy doom ñu ne moom oto sàngam léeg-léeg sax dégg ñu ne may nañ ko juróom-ñaari biey màkk bi nag di dalal xelum Seydina ne ko gaa yi nee lañuy ñuy defal kee yow lii la yàllay defal mu ne ko yaa mu ne ko waaw mu ne fa wallaahi li an yahdiya allahu bika rajulan wahida xayrun laka min xumri naam da ko ko waatal da ko waatal ci yàlla nga defar kenn li an yahdiya li an yahdiya allahu bika wala li an yahdiya bika allahu rajulan wahidan nga defar kenn mu ne ha mu ne moo gën li gaa am lépp nga defar kenn nga wax ba wax ja kenn defaroo ca de san su ma ñëwee ci laay ji léeg-léeg wala addis bi sama xel dem ci oustaz Omar Fall ma leen nekkoon ca côté euh, Sicap Mbao ci sama conférence ba ak jàng xam ja ndeysaan ma wax ba ak si fii joxe ci misaal mu a jànq jee toog ne am ca ñu def boppi neen am ca ñu yokk kawar ca seen bopp ya su ci kenn jóge ci conférence bi dem këram fiiree ko ba set ba léttee dañ bu jël kaale teg ca bopp ba muur ko ba mu des xarkan beeg ténq yi te fekk ca sama waxtaan wii la ko jëlee ko loolu jànq bi def moo ma gënal mu jëndal ma ñeenti kaat kaat ndeysaan sas Umar Fall benn jànq na ñokket ni ma tey nga doy li kat de <laughs> waaw mu ni ma tey nga doy li kat fii de bu da bu daganoon fii lay toog firéeku fi la jigéen ja waxoon ca Thiès ndeysaan conférence ñoom Yacine Touré baag ndeysaan Khady Ndiaye oustaz kay firi ma ma ne ëw <laughs> oustaz kay firi waaye jànq booba ne ma ah tey nga doyle kaat kaat ma ne ko xaa ah, mu ne ma lii somba bi tey lay dañ tey la ci muuraay di tege buñ tàqali ko dama wujj suñu borom mu xëm mu xëm conférence ba ñu bëri xëm juróom benn jànq ñëw fekk si ko ca loola ne ko noog yow koy ànd bi lay tey nga bëri kaat kaat yal na yàlla yokk barke jànq jooja waaye te bëril jànq ju mel ni ñoom di courage et merci beaucoup waaw di courage et merci beaucoup <laughs> waaye ndeysaan xam naa ko dem jamono ji wa mën naa am peut-être ñu ëpp ca ñoom am ñuy boroom kër ndeysaan ak seen muraay yooya loolu yonti wax yaa ali ali mu ne ko labbay mu ne ko fa wallahi li an yahdiya bika law rajulan wahida looloo tax imaam Nawawi ne mu ne ma gis ne kon roq boobu war na cee mën a dugg mu liggéey ci ci la rajo Sud FM ca jamono yu yàgg jamono yàgg ca ba ñuy nekk ca biir dakaar ca immeuble Fahd jamono yi ñoom Serif El ak ñi jaar ci diggante bi ñoom Babacar Touré ñi ñu ko àndaloon ñu ay sëfoo rek ñépp ñëpp ba ci notre directeur Baye Umar Gueye daal ci Umar Diouf ñoom ñëpp rek Abdou Latif Coulibaly Abdoulaye Ndiaga Sylla ma yem foofu ngeen motti lim bi ñu daal gis ne kon war nañoo mën a amal ay émissions yi diine ci rajo bi ndax nit man caa jubbanti ko nun ñëpp nu bokk tuyaaba ci mbokki bind bi jeexut dañoo ak suñu koor yëkkatee di ñaan jàmm ci réew réew yi ko wër